at mu nekk dañuy woote bésu bu mag ci Masaalikul Jinaan ren la 23 lay doon tuddee woon nañ ko fi bàyyi sëriñ mi tuddee woon nañ ko fi itam sëriñ Ablaye Dia xaadimul xuraan yaakaar naa ni jataay bi jaadu na ñu leeral fi loolu euh, ndey daara Touba soxna Umu Kalsoom Fay moo ko jiite euh, sëñ Abbas Mbàkke mu sëñ Moussa moom dafa ñëw teewal euh, Cheikh Awa Balla mu sëñ Moussa Bachir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 jazaka allahu xayran jazaka allahu xayran jazaka allahu xayran sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man sanaa ilaykum maarufan fa kaafiuuhu ku leen defal teraanga na ngeen ko fay am feneen fu mu wax su ngeen nee jazaka allahu xayran fay ngeen ko jazaka allahu xayran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 suñu eh, récit indilaat ñu ñaar fukki candidat yi ñu amoon ñu ngi noonu di wër eh, ku ngeen yaakaar ne moom la ci ñi ngeen di gis nii borom 5 millions 500 yi la ñu xaar anta bi ni'mati rabbika bi majnun ñu déglu sëñ Moustapha mu wax ñu kon kooku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 ak Basiir koo kan la kan la sëñ Mbàkke kan la sëñ fallu sëñ Fàllu sëñ Fàllu sëñ Fàllu Saane sëñ Fàllu Sànqe sëñ Fàllu Sànqe ah sëñ ci kanam première ci kanam lay nekk tàccu leen sëñ Fàllu may ma tuuti tàccu leen sëñ Fàllu waay saal bi yëngu wudde première la de première duy fode ah takbir waaw leen góore waay kon nag woo sëriñ bi